di yóbbu doomu Amérique yi waaye nag ci xibaar euh, ñu indi kilifa yi daal xam ne ne loolu mënta nekk kilifa yu Gàmbi yi jël dogal ne lu ko dalee tey jii ci dimanche ji ci minuit daañu tëj seen frontière ak euh, Sénégal loolu nag euh, diirug ñetti ay bés nar a doon li ko waral mooy Gàmbi nag di tëj frontière am naka noonu tam li nga xam te ne mooy ay aéroport am benn avion du fa wàcc nee na nag dogal boobu dañ cee waxtaan kilifa yu Sénégal yi ba noppi laata ñu koy jël Mauritanie moom euh, daal di tëj ay frontière mag Sénégal euh, kon tàmbali nañ ko doxal euh, dem teewul nag ay doomu Sénégal yoo xam te ni dañoo tàggatémbe woon ci diggante ñaar yooyu mujj ne leen bàyyi ñu daal di traversé leeral Mouhamed Diop. doomi Mauritanie ak yooyu Sénégal yi teg a woon ci frontière ñaari dëkk yi mën nañoo noyyiwaat bu baax ginnaaw bi ñu leen maye nag ñu jéggi frontière bi ndax nag frontière bi dañ ne ko ràpp tëj. di dogal boo xam ne ñaari président yi ñoo ko jëlandoo di Mohamed Ould Ghazouani ak naataangoom bi di Macky Sall. lu ñeel nag Mauritanie ñaari nit nag ñoo fi am ba léegi lii di feebarab coronavirus bi di benn doomu Australie ak benn doomu Bangladesh. am na nag lu toll ci téeméeri nit ak juróom fukk ak benn bu ñu sukkandikoo ci euh, nguur gi ne ñoom nag ñu ngi leen ber ngir rek xool ndax ñoom feebar bi laalu leen Mohamed Diop nag sët RFM Mouhamed Diop ñeneen ñoo xam te ne tamit fii ci Sénégal la ngeen tega tembe di ay tubaab touriste yi fi ñëwoon demoon ca Saly euh, waaye dañoo tëj euh, aéroport yi kon avion mënul dem avion mënul dikk tax nag ñu jaaxle lool jamono ji rawatina nag borom hôtel yi ñoom tamit xam ñu ni def ak ñoom euh, ki xam. fu ñuy fanaan jox leen ndékki ak añ sànq ñu mën a xam exactement. kan moo ñuy fay. kilifa yi nag fas yéene jàppale borom hôtel yi pour ñu wut saafara ci mbir moomu. maa ngi doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy agence de yooyu ñoom ñu ngi ci liggéey métti métti ak compagnie yi pour fexe ñëpp mën a dem ñibbi seen kër si jàmm njiitu agence sénégalaise de promotion touristique profité tamit ci tukki nemmeeku bi nga xam ne amal na ko ci hôtelu station balnéaire yi ngir xool yam jumtuwaay wala boog ay matuwaay yu ñu jot a teg ngir xeex coronavirus bi. RFM bo Abdourahmane Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. mooy ba léegi ci xibaar yi wax ci xibaar bi di jàngoroy coronavirus am na ñoo xamante ne gëmuñu ko ca diwaanu Noto waral nag ba ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi di leen di ñaax xam ne ne jàngoro ju lu am la fii ci réew mi ki def lu ñu mel nag di ministre Alioune Sarr ministre du tourisme nekk tam neex bu Noto nee na sàkku na ci ñoom daal ñu gën a wàcc ko cet gi Cheikh jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu transport jaww ji ak tourisme nekkit maire Nootu Jobaas dikkoon fii ci dëkkam ngir gën a ñaax askan wi ci jàngoro ji nga xamante ne moom mooy lëmbe réew mi mu daje woon nag ak chef de village yi moom sax xamal ne na dafa am ñenn ci ay chef de village ay notable dañuy wax ne jàngoro ji amul waaye nag nee na li wér te moom mooy jàngoro ji de lu am la te day fàtt. man bis ma déggee nit di soxantal li naan ay coronavirus amul ak yu mel noonu sous-préfet immédiatement une na amul. loolu loolu ñun dañuy songante ak moom waaw parce que jot foo xam ne boo xamul buur saay na nga xam buur dee na kon chef de village vraiment lii maa ngi st insisté bu baax a baax a baax il faut ñu def attention te feebar bi kenn amagul garabam ñun ñëpp ay taalibe lañu amul kenn ku fi gëmul yàlla waaye réew day toll foo xam ne ah responsabilité am na solo de kon ñu ngi ñaan imam yi ñu jàppale ñu ci liggéey bii ci waxtaan ak nit ñi ñaan ñu ko yàlla de waaye su amee juge xamul kii imam la xamul kii chef de village la xamul kii ministre la xamul kii journaliste la day ñëw rek song Youssou Dieng mi nga xamante moom mooy infirmier chef de poste bu Kisaan nekk ci Noutou Diobass mi ngi dikk nag ci jàngor ji ni muy dikkee ci doomu aadama sa yaram bi di tàng jër après nga amee donc fièvre maanaam en même temps ngay sëqat amaale infection respiratoire boo ko sentiree Alioune Sarr mi ngi sàkku nag ci doomu Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi bitim réew ñu des ci dëkk boobee ba keroog jàngor ji ñu di ko faagaagal ndax jàngor ji mën a gaaw a génn ci réew mi RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop jàngoro ji waral nag ba ñu tëj eh, lii di luuma bu eh, Touba Mouride nekk ca Casamance. mu nekk nag lu bi mën a gën a mag gannaaw euh, ma bu jawbe marché jawbe dañ ko tëj ngir bañ dajaloo yi ak euh, jamonoy jàngoro ji di coronavirus leerale mook siklit kamfani ngir mi ñi ngi ko doon waajal semaine bi yëpp daanaka di ci waxtaan ak jaaykat yi ni kiy jëndkat yi ci mesure bu ñu tabb ni dakkal bépp jëflante ci luuma Touba Mouride ab ndigal bu ñu topp bu baax Ibrahima Ba mooy meeru commune Faouna. fii ci euh, Casamance yaakaar naa ne su dul luuma Diaobé Touba Mouride bokk nañu luuma yu gën a mag wante nag ci ndogal président arrêté bu mu jël pour ñu wàññi dajaloo yi tax na bu Touba Mouride def naa communication à la rajo yu fa nekk ñeneen ñi ma woote ci téléphone ci chef de village yi mu bañ a am waaw arrêté nañ lu motu ba murit buñ awagum beneen nouvelle ordre benn jaaykat ñëwul benn jëndkat tamit ñëwul ñu yëpp nangu nañ ne ànd nañ ci si arrêté bu président jël pour ñu invité ndaje yi waaw loolu moom tey lu motu ba murit amul ab mesure bu ñuy ngir topp ci lu gouvernement bi digle naam sa amagul benn ka bu ñu nemeeku ci diwaan bi naka it toog ñoo di xool loraange yi mu mën a jural commune bi ci koom-koom xam naa ne lu bon bon téeméeri nag béy yi tamit noonu la xar yi tamit noonu la mbaam yi noonu la fas yi noonu la dugub moom loolu moom lu ci jaay ay ton ton moom ak gerte yàlla def na moom macha allah lu ma bi chaque samedi lu ma versé koppar bëri na wante nag lii moom lii yëpp wér te wér la moo ko gën moo tax ne muñ ñu arrêté loolu yëpp ñu gëm ne feebar bi am na yàlla musal ñu si coronavirus te yàlla jàppale ñu dëggaguñ benn cas boo xam ne ni bii génn na fii si région de Sédhiou a fas yéene teg ab matériel ci bépp lieu public ngir respecter digle yi ci wàllum hygiène Sédhiou Max Euclid Company RFM Max Euclid Company ñeneen ñu yëg tamit euh, njeexitalu jàngoro ji di coronavirus mooy euh, ñi xam te ne ñooy jaaykat yi nekk ci marché euh, bu Medina Wadène nekk ci diwaanu Kaffrine marché boobu dañ ko tëj jamono ji ñi di commerçant yi nekk tàmbali ko yëg bu baax baa baax tax ñuy woote wàllu Oman Ndiaye lu ëpp benn million ci suñuy koppar la feebaru corona kar ci ay recettes yu waroon dugg ci mairie bu Missirah Wadène lu ni mel daanaka dina am njaxital ci seen gafaka bu ñu sukkandikoo ci maire ba Moustapha Ndong. nekk na loo xamante ne nii lu ñu tiis la lu ñu métti la. luuma Missirah tey mën naa wax ne région bi tey mën naa wax ne moom moom mooy suñu Sandaga. mooy population bi nga xamante ne nii programme bu ñu mën a am li ci ëpp ci lu wër ci région bi mooy dañuy jël seen alal ñëw indi ko ci luuma misira di ko jaay ni métti na ci askan bi beneen métit bi it ngeen xam ne koom-koom la woon ci wàllu commune bi ci li ñuy doxal waaw parce que par luuma doon nañu am deux cent cinquante ba trois cent mille waaw léegi zéro franc waaw xam nga loolu métti na luuma misira Wadeen mënees naa wax ne luuma international la ndax fu la way di jógee ci réew mi ak biti réew moo tax mu jàpp ne daanaka dakkal lu ñu mel fàggandiku la ngir aat askan wi ci feebaru corona bi lee yàlla nañ ci yàlla musal rek waaye tey quarante personne rek bu fi jóge woon laal na famille bu ne parce que tey boo xoolee fii ñun ñëpp a bokk bu ñuy wax nit ñi ne nañ arrêté luuma bi gis nañ ne loolu moom moo gën ci ñun waaye nag à quatre vingt quinze pour cent à part fonds dotation yi li ñuy fonctionner yépp luuma bi ci lañ ko doon amee njeexital googu moo tax mairie ba ñuq ci gafakam du tolloog téeméer ak juróom fukki junni ci sunu koppar jënd ci ay saabu satala ak siwo ak yu ni mel jébbal ko daara yi ak yenn bërëbu fajukaay yi waaye muy sàkku tamit ci ay natangoom ak ñenn ñi seen loxo jot na seen ginnaaw ñu topp yoon wi le Misra Wadène Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye dañuy des foofule ca Kaffrine ak kàddu yi nga xamante ne eh, kii di eh, président association des présidents conseil départemental yi yëkkati na ko moom muy sàkku ci conseil yi ñi nekk ci maire yi ak conseil départemental yi ñu dugal seen loxo bi seen loxo ci wàllum eh, xeex bi ci xaalis xam ñaar téeméer moo xam ñetti téeméer ñu dajale ko ngir daal di koy jàppale nguur gi ci xeex bi ni xeex coronavirus ñu déglu Adama Diouf ci micro Oman Ndiaye. su le plan économique war nañ mën a xalaat ab fonds de solidarité locale. jox ko waa action sociale ak service dédié yi ñu identifier ñi nga xam ne war nañoo sonn. ci ma feebar bi ñu mën leen mën a jàppale. dinaa ko tasaare waxtaan ci ñi ma war surtout waa association des maires du Sénégal Aliou sa président Aliou Sall ak association des départements yi yàlla maa koy jiite ñu xool nañ lañ mën a au niveau local dëkk bu dëkk gox ak gox nañ lañ mën a dajale suñu doole créer un fonds de solidarité maa ngi xalaat képp kuy conseiller départemental wala ngay conseiller municipal il y mille vingt deux conseil président conseil départemental yu Sénégal nappkat yu gànnaar yi ñoom tamit euh, soobu ci xeex euh, coronavirus euh, ci loolu nag jébbal nañu ay gel ñi nga xam te ne ñooy nappkat yi naka noonu tam eau de javel waa comité local de pêche artisanale noonu def lu ñu mel ñuy ñax tam ci nappkat yi ñu sàmmoonteeg tegtal yi Mouhamed Nabissi la coronavirus bi lee dugg ci biir réew mi tax CLPA bu Ndar ëmb nappkat yi ci Langue de Barbarie jël matuwaay fas yéene tàggat seen naataangoo yi gannaaw bu ñu indee ay ndimbal mu bokk ci ay gel alcoolique ak yu ni mel. jëlee lu mel ne Langue de Barbarie ñëpp xam ne ni suñu dëkkuwaay ni mu mele kon dana jaadu tey kenn ku ci nekk ji sa rôle information boobu dana jàll ba nga xam ne bu ëllëgee aussi tey jii lu ñuy daw yàlla mën nañu si muccali encore incha allah ñëpp xam ne am loolu tey jii daanu topp waxtaan ak ñoom sensibiliser leen wax leen jàngoro bi ni muy def ba pare yëkkati produit bi jox leen ko nga xam ni saa suñ ñëwee ci mbaar mi rek daañu si mën di raxasu aussi Oumar Ndiaye yor wàllu environnement ci CLPA bi xam le njëriñ lu mu am waaye itam xel dem bu baax a baax ci seen naataangoo nappkat yi ne ci réew Mauritanie ñoom nag ñu digal leen ci fànn woowu falee gaal yi nga xam ne aussi noo nekk ci dal yi di noo ngi déggante ak ñoom pour nu bañ indi boo xam la jógee te it ñoom comme noo ngi bi jeex doon jàmm di ñaan yàlla rek yal na yàlla yamale mu jeex ci jàmm. nu mu mënti demee tàggat askan wi doon lu ñu war a gën a yokk ci langue de barbarie rawatina ci mbaar yi ci quai de pêche bi le ak bërëb yi nga xamee ni dañ fay faral di dajale ko di waxtaan RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla amari ci di màggal tey Kazu Rajab xew-xew boobu di Kazu Rajab di mandargaal gane kàdduna Serigne Mouhamadou Falilou Mbacké moom Serigne lu nekkoon ñaareelu xalif général des Mourides jàngoro yi coronavirus nag waral ba xal général des mourides sàkku ci taalibe yi euh, ku ci nekk nag euh, nga màggal xew-xew bi di Kazu Rajab te dëkk ba nga nekk bañ a dem Touba loolu nag ngir bañ ay dajaloo mbooloo nga xam te ne euh, mën na gën a lawal jàngoro ji di coronavirus RFM bitim réew. waaru bitim réew jàngoro jooju sax fës ci àdduna di lëmbe àdduna jamono ji fi mu toll nii nag ñu ngi toll ci onze mille morts maanaam fukki nit ak euh, benn junni nit fukki nit euh, fukki junni nit ak benn yu ci ñàkk seen bakkan lépp nag ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi junni doomu aadama ñoom la jàngoro ji daal ci àdduna bi mu laal nag euh, téeméeri réew ak juróom-benn fukk ak ñeent matuwaay yi ni jël nag ci àdduna bi yëpp di tëj réew yi ak yeneen tax ba toll ci ëpp benn milliard doomu aadama jamono ji leen tëj maanaam dañoo nekk ci confinement daane la ak réewum Guinée foofu nag ñoom jamono ji ñu ngi ci élection tey ji ñu fay amal élection législative ànd ak tam élection référendum ren référendum constitutionnel jëm ci soppi constitution ba ah, di référendum boo xam te ne jur na coow lu rëy ca réew ma waaye président ba moom nee na dafay am ah, ay jàppante sax amoon na démb ca ma waral sax ba président Fakonde xam na ne jël nañ matuwaay yëpp ngir leeraan gi mat sëkk am ci wote ñu fàttali ne FNDC di Front national pour la défense de la constitution bu Guinée ñoom dañu wax doomu Guinée yi ñu daal di eh, gedd woto yooyu bañ cee bokk. rajo askan ñu koy defal saa su ne léegi seeg ci corona news di xibaar yi ñeel jàngoroy corona virus dañ ci ànd ak Abdoulaye Diop ñu doore ko ak course ci vaccin yi mu mel ne yaakaar mën naa am ak lii di chloroquine bi nga xamante ni ci benn ci ay bés jóge na ci fake news ba ci candidat médicament xeex lii di Covid 19 ci Europe rawatina ci France gouvernement ba dëggal euh, ndogalup euh, yokk essai clinique bi daal di koy gën a yaatal te kii di IRSEM di ko ceytu li ni mel dinañu ko joxe talaata ñaar fukk ak ñeent ci weeru mars bi les produits yi nga xamante ni jur na coow dina fekk yeneen ñetti candidat yi nga xamante ni dugal nañ leen ci essai bi discovery bu yaatu te institut de recherche médicale daal di koy eh, jiite bi lay jàngat nag dina dugal ci biir lu ëpp ñetti junniy patient ci Europe bokk na ci juróom ñetti téeméer ci réewum France waaye laata loolu lu ëpp ñaari téeméeri junniy doomu aadama ñoom la virus bi daal di laal ci téeméer ak juróom benn fukk ñeenti réew ak i territoire ba mbas bi dooree ba léegi lu néew fukki junneek benn ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari doomu aadama ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan lu ëpp benn milliard doomu aadama jamono ji daan nañ leen di tëcc ci àdduna bi yépp ngir rek xeex lii di coronavirus gi masir yi ñuy jële di gën di seere ak ay couvre-feu ci mel ni ci réewum France dëkk yi di Perpignan ak Béziers ñoom xam la nañu samedi bi taxawlop couvre-feu ci seeni bokk moomeel lu ko dooree vingt heures ba six heures du matin fii benn fan ci weeru avril ni ki altine sax comité scientifique bi dina joxe xalaatam ci rek wëyal confinement bi foofee Italie di réew bi virus bi gën laal ci Europe ak lu ëpp ñeenti junneeg fanweer ak ñaari doomu aadama ci ñàkk seen bakkan di gën a tengal mesure mi njeextalu ay bés bi sax lépp luy parc space vert ak jardin public dañ ko daal di tëj laata rek ñuy xaar yeneen dupp mesure ngir fexe ba askan ba foofee toog ci seen biir kër ci dëkk boobee sax club de football bi di AC Milan xamle samedi ni directeur sportif bi di Paolo Maldini daal di nañu koy contrôler positif ci Covid 19 bi niki noonu doomam bi di Daniel. ca Juventus tamit ki nga xamante ni moo di Paulo Dybala ak Corom ñoom it daal nañ leen déclaré positif mu nekk ñetteelu cas ci équipe boobee ginnaaw Daniel Rugani ak Blaise Matuidi ca Espagne moom club bi di Real Madrid nekk ci tiis Lorenzo Sanz nekkoon président ba moom daal di ñàkk bakkanam ginnaaw ba ñu ko testé positif ci coronavirus ñeenti fan ci ginnaaw Espagne googee sax moom mu daal di yokk ci junneeg ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama yi si niki samedi gi ña ko amee foofee nag daal di yokk ci téeméer boo jël lu ëpp ak ñaar fukk ak juróomi aljuma ak léegi nax bàyyeekoo na ci lu ëpp fukk ak juróom ñeenti junni dem ba ci ñaar fukk ak ñeenti junni Espagne nekk ñetteelu réew bi nga xamante ni virus bi ñoom la gën a laal ginnaaw Chine ak itali waaye ci kanamu Iran fii ci Afrique continent bi wàññeegum na lu ëpp junni ak téeméeri cas ñaar fukk ak juróom benn daal di si ñàkk seen bakkan ci lu toll fukki réew suñu sukkandikoo ci bilan bi nga xam xamante ni centre africain prévention ak lutte jëm ci maladie yi publié na ko ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars réew yi féete Afrique sowu jant ñoom jamono ji fa la Covid 19 ba gën a wulee ñaay Égypte Algérie ak Maroc ku si nekk enregistré nañu ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom yu toftal ñeenti fukk ak juróom-ñaar fukk ak ñaari cas suñu sukkandiku ci chiffre officiel yi nga xamante ni disponible na ci Afrique subsaharienne nag Afrique du Sud mooy réew bi jàngoro bi gën laal ak lu toll ñaari téeméeri cas Burkina Faso ñaari doomu aadama ñàkkati nañu seenu bakkan te coronavirus bi rey leen ci jamono yoo xamante ni ñeenti ci ay ministre ci réew moom mi daal nañu leen laal réew mi am jamono ji juróom-benn fukk ñeenti kaaw Covid 19 réewum Sénégal jamono ji mi ngi ci juróom fukk benn kaa ñu leen di fàcc ñu daal di koy daaneel ak digle yi bu ngeen yëgee symptôme coronavirus bi toog leen seenu kër te woote numéro vert bi di 800 00 50 50 wala sami national ci 15.

ñu koy gërëm bu baax moom Abdoulaye Diop ci xibaar yool ñeel jàngoro yi euh, corona bi di corona news yeneen i corona news xibaar ñeel jàngoro ji ci suñu xibaaru digg bëccëg gi lay doon mbokk yi foofu la ñuy yem ci xibaar yi ñu feebar bi di coronavirus gën di law ci Sénégal euh, yeneen juróom-ñeent nit dem gis nañ ne am nañ jàngoro ji euh, tax nag ba Sénégal léegi mi ngi ci juróom fukki cas juróom-benn yoo xam te juróom yi ñoom ñu jot nañoo wér nguur gi di wéy di sàkku ci askan wi sàmmoon rek digle yi réewum Gambie mi fas yéene tëj frontière nag Sénégal lu ko dalee tey jii ci minuit loolu nag euh, gannaaw bi ci ñaari nguur yi waxtaanee ba noppi diirum ñetti semaine kon dañuy tëj frontière yi li ko waral di bañ jàngoro ji eh, dugg foofu ca Gambie di coronavirus nga xamante ne sax jot na dugg foofu kon ca réewum Gambie wax ci ay doomu Sénégal yu tàggatémbe ci frontière diggante Maroc ak Mauritanie ñuy woote wallu jëmale ci gi ñu dimbal leen ñu mën a dellu si fii ci réew mi. mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Abdou Thiam ci machine bi léegi.